loolu dina nga. maa ngi fay si loo nekk ah rek. yow yaa ngi me yaa ngi toog nii mel ni ku ku amut liggéey xanaa jeexaluloo sa coos bi. jeexal naa suma coos bi waaye maa ngi bugg a commencé suma liggéey bi mu ngi mel ni bagage yi yëpp a seer maa ngi toog. xanaa demuloo inko. <laughs> lan moo inko. da xam lan mooy inko. waaw soo ñëwee suñ place. Mhm. looy njëkk a bàyyi xel mooy. mooy inko. maanaam ING CO. waaw kay am na nag ci dëkk bi fii. Mhm. place yu bari. ñu ngay jël suñu kolo bi di ko waa pire pire ji fii la bu ko jaawaale soo ñëwee rek seetal brand bi mm. lii mooy di impôt su nekkee kapinta nga mm. maçon fiita mécanique bi sax kaa ñu ji kontaan naa de lii mooy impôt soo fi ñëwee rek kontaan fii nag Jimpex mooy seen maakaan bu mag bi waaw soo demee Sukuta traffic light ñu ngi fa amee tamit beneen branch maanaam Sukuta traffic light am nañ fa beneen branch am nañ fa beneen branch ak Inco adunabi. bi mu asalaamaaleykum asalaamaaleykum suma gars yi tey na Korka street talk la ñu ngi fii si Banjul bi moo nekk force programme bu mu def bu ñu def si nga xam ne ne ah, bu 2020 demee ñu dugg si 2021 ma ne 2020 was very bad 2020 am na corona am na accident yu bëri am na yuut yu bëri yu dee si backway bi this time nag 2021 ngir yàlla teeruñu jàppale ñu jërëjëf ngay ah, ngi wax ñepp happy new year yalla ñu fekke debine ak ak at yu bare bare bare bare te nak ñu ngi fi ci Banjul xam ngeen nak every year comme ñu ko day defee rek Banjul nga xam né euh ah, fi la fi la yépp dé xewee si New Year's Day su te nak ñu ngi biiri Banjul nañ anda ak suma caméra lady bi tey nag jigéen laa amee moo nekk suma caméra lady mo moo mam maam Seex Ngom ha ah, xam nga suma mam cheikh Ngom xam ngeen family ban la joggé moy lolu suma sister la nak wa holal dañ dugg ci biir sister bu mën goor la jigen bu mën goor kala ñu dem ci biir nak ñu xool gaay Banjul yi ak nit yi yëpp duñ fi tasee tey lañ leen nekk def maam se nañ dem si biir man Thierno Sarr Mbuub laa tudd Thierno Sarr waaw waali lañ ma gën a xamee ko waali nag man Thierno Sarr Mbuub waa ko waali la la waali non dama dee dama dee aat comme comédie comme. Ah. waaw defal ma benn comédie ma ah? ma comédie ma woy. non comme loolu school la am nee na comme ñu amee programme noonu. si la ñu ah, ko yow doo comédien booy kon wax ma benn joke ko. benn joke. benn léegi mayel. ma maye waaw. comme maa comme man façon ngi maye laal la nga. yow doo comédien booy. ma ne nga wax tell me a joke. wala yu aat comédie ma xool <laughs> waaw xam nga comme dama ko war a préparer moo tax. kon yow doo comédien. waaw comme les students laa léegi. jërëjëf. waaw ah, ah, ah. jël ngaa wàcce. waaw ok ñu continuer kon. jërëjëf loolu rek la maa ngi cool yaa. nga ne naka. sant yàlla rek. so tey gis naa ne Banjul mu ngi fees. yeah Banjul mu ngi fees. waaw tey New Year celebration bi te xam ne ne cosaani hunting masquerade Christmas New Year's ñëpp xam ne ne Banjul la moom lool so du yomba every year rek dafaa gën a développe dafaa gën a yokk xëy na bi juutoo di coronavirus bi fi jot a jaar ni moo tax affaire si xaw a wàcca ni ba daf daan daaxalu mel nii tamit yeah so léegi yow naka nga bëgg a 2021 mu mel nag 2021 ah yokkute am développement am jaama ji yokku yooni tukki yokku ñu jàppale yuut si si lu yëngu loolu rek la si soxla man. kon man la Ousseynou Gueye. yow mus naa laa mit de. aywa kay fële la woon. xanaa da nga bëgg rap. yaa ya nga na rapal ma woo. nakam yore nakam. jaama rek yow ya nice de. jërëjëf yow yaa tudd nakam, Mariam. Mariam tey lan moo la fi indi. kontin hunting kontin bi. waaw ñaata nga gisangu. waa ñetta. ah ñetta. mun ngaa fecc a fecc honte. déedéet. woy woy honte. déedéet. ah. man dëkkuma Banjul. dafoo dëkka. man Sukuta laa dëkk. xanaa ñu dëkka Banjul rek a mun woy honte. ah déedéet. Hmm. noo bëgg a noo bëgg a célébrité sa ñuy yeb. toog rek xool honte ni ñu enjoy. ah ñu enjoy. Hmm. sa Gambian favorite artist. Jizzle. mun ngaa woy woyal ma xool. Hmm. trial rek trial ma xool trial. nañ waay rek yaa ngi cool si loo nekk yaa trop nekk man rohi yow like so yow yow noo nekk di welcome 2021 xanaa ñu ñaan rek yàlla 2020 wu fi amati rek loolu rek la ñoo ñaan ñu fekkee ko at yu bari mm. waaw waaw yow yow ko paree pour célébrer tey ah xanaa ñu sant yàlla bu dara happen rek loolu rek la ñoo ñaan waaw hello naka ngi daw liggéey si média si loo nekk maa ngi yaa ngi nice de jërëjëf si sa jàmbur xam nga yow ñu bari xam ne la waa léegi ñu la xamut wala ma nga wax ma sa tur. <laughs> Euh, salaamaaleykum Korka maa ngi nuyu Gambia euh, man la Guèye Ndioro Paradise TV Paradise FM maa ngi leen a sant di leen gërëm bu baax a baax a baax si seen liggéey bu nice bi ngeen ñëw def Happy New Year. jërëjëf <laughs> yow yow noo nekk noo noo noo yaakaaree 2021 bi noonu yow noonu naka nga bëgg mu mel. am um, 2021 bi moom ñu ngi yaakaar mu ñëw neex coronavirus bi génn because 2020 bi moom um, dafa nekkoon at bu diis nekkoon at bu nga xamante ne ñëpp lam laa lépp a taxaw business bi taxaw soo 2021 bi ñu ngi séntu mu nekk at bu nga xamante ne Gambia ñun ñëpp dinañ si gis seen boppa Gambia bi buum ñëpp nekk si jàmm su ko defee dëkk bi ne xaalis bi bari uh-huh. ah uh-huh. waaw yéen a ngi ok yeah thank you <laughs> jërëjëf <laughs> kan mooy sa favorite Gambian Moom um, nge hmm. kanta ah, xama woyam mu woye Fatou Yo ndekete yo I like that song ndekete yo waaw hmm. yaayam ne ma duma ko may naka ah. kor ga yak ma woylo <laughs> jërëjëf thank you suma gaay comme lu ma leen doon wax rek tey nag ñu ngi fii si Banjul ah ñu ngi ñëw xool oncle oncle Korka oncle Sol happy new year happy new yaa ngi bu baax oncle gis naa ne every year Jollof Art dañ dee mun a indi nit yi fii nii doo leen dara dañ dee spend everything nga ñëw yow naka lan moo la motiver ba nga def loolu. waa giving back rek parce que soo nekkee ci dëkka balaa nga laajte lu la dëkk bi di defal yow laajte lan ngaa defal dëkk bi waaw so ñun ah, lii la ñu yàlla baaxee so what we do is actually um, wane culture Banjul li fi suñ maam yi bàyyi woon li nga xam ne. Euh, dafa deeyoon for euh, for a long time korka so ñun idea boobu looloo tax ñu indiwaat ko so bi mooy ninth edition bi nag by the way dinaa jël opportunité bi pour gërëmaale suma xarit Mohamed suma parce que moom kiw kiw kiw TV kiw sel ànd nañ si pour ñoom ñi ñu dee jàppale ba ninth year bi waaye ñëpp xam nañ bi ati corona la so moo tax ñun itam sonaluñ kenn pour loolu waaye giving um, back dal Korka motax ñuy dé eh, ñuy indi wat uh, festive période bi bép affaire bi ëpp loxo. wa légui yow lan nga expect ci 2021 bi am nga 2020 was very bad. si ku nekk so yow lan nga expect ci 2021 ak Jollof Art lan nak lan mo nekk sen future project si. wa nañu yalla may wër gu yaram njëkka daaxal ñu corona 2021 bi ni liñ am ci plans bari na. ba pare den ñu ngi pare pour célébrer ten year anniversary capital cultural carnival bi boobu moom xam naa ne dinañ euh, very soon dinañ wone euh, programme guide bi ak lana lan la waaye pour Jollof Arts moom pare nañ pour ànd ak QTV si lu bari waaw euh, maa ngi cee ñu ngi cee dox ñu ngi dox jéego yi pour seet naka la ak lan la waaye liñ nar at bi incha allah ñëpp dinañ si teg seen bët parce que rëy na te bari na. te Gambien si yëpp dinañ leen entertain parce ñun ci area boobu lañ mun a joxe ñun liñ mun. jërëjëf happy new year. happy new year to you tey tooñu loo nag. non tey tooñu ma non tey tey ma nekk xale bu baax. xam nga ñu ne 2021 bu ngeen ñëw. waaw ndax na ba pare. waaw gars yi ne léegi ma change bàyyi at maire yëpp ñu ne bu ma leen rusuloo waat ma change so dama jéem a change nii rek just for just for today. waaw let's see nag change bi how long la last. jërëjëf. happy new yaa yaa ngi nice de. jërëjëf. naka gars yi ay Afrique. gars yi si jàmm. waaw. dégg naa Lamine dafa dem Bakwe. <laughs> waaw dafa dem Bakwe. ah ok si ban dëkk. mu si yoon bi. kon naa mu ngi Guinée Bissau. déedéet agagul ah, ah, yow yow noo nekkati célébrer sa 2021. xanaa li liggéey rek depuis dem ma ñu ngi liggéey. waaw jot amut. yow ah, lan nga yaakaar si 2021 bi. ah lu yaakaar mooy am jaama am wérgu yaram di ñaan yàlla rek. Covid 19 jógee loolu mooy suma yaakaar ak yokkute si kaw sa kanam. mun ngaa wéy. waaw. woyal ma. <laughs> non boo dama ko denc be. woyal bay ma denc ko rek. woyal ta ka bay ma denc ko be. waaw voilà meewal ñu. yu. meewal ñu. meewal ba pare. déedéet man soow laa mun ma meew. waaw kon soowal. dafa amoon am i béy waaw léegi béy yi dañ ko miin torop ah, léegi am na benn béy bu nga xam ne moo ko fa gën a miin benn bis béy yi nag ñib si gisul beneen béy bi léegi beneen béy bi mu ngi des si gannaaw léegi mu dem di seete beneen béy bi nag béy bi nga xam ne daf ko miin torop mu dem di ko seeti si àll bi léegi bi mu demee si àll bi dem di seeti béy bi ah, tasee béy bi béy bi njëkk a koo gis xamee ko nag daw di ko jublu si mu foog ne leneen a ñëw di ko jublu si ndeke béyam bi la moom mu teg daw. dafa dee yoon wala. noo deewu dafa xum. yow kon yow soo indee meew bi mu gën a garaaw. noo bàyyi ma soow rek ah. waaw. Chuta pra mesa, chuta pra mesa. Jaxoo Baay. waaw maay buuri poli. maay lan buuri poli. sooy caaxaan léegi tey ma baay du ma lay. maam Cheikh man magam laa. maam magam ji suñu yaay yaa bokkande yaa baay. lu ma ja ma jaaxal maam Cheikh saraxa la. Ah, waaw waaw lu tax maam Cheikh yaruloo ko. yar naa ko de xam nga yëfi géwél rek. ay géwél la ñu. Ah, waaw yëfi géwél du tuuti. loo loo yaakaar ci 2021 bi noo bëgg a mu mel. jàmm ju ànd ak salaam. wërsëg bu ubbeeku. ah mu seddaguy ni ndoxum galas melni su 2021 bi yan nañu daxal 2020 bi yalla def jamma def sutura wursagi yi bawan, baawaan ah jërëjëf ñaanal maam Cheikh rek am jeuker yalla may ko jikar maam Cheikh yalla nga am jeuker way doy kon keroog mu xam ay gewel lañ piir waa won ñu nga ah, ah! artiste du daanu de maam Cheikh nag maam Cheikh artiste bu daanu la. naka. sant yàlla ba yóbbu yàlla ñu fekkee déwén. amiin. ne artiste du daanu. waa artiste du daanu. waaw maam Cheikh maam Cheikh artiste bu daanu waa moo tax dafa fonk liggéeyam. jigéen ju man góor la. waaw. jigéen yow yow loo loo expect si 2021. parce que du ma téye maa ngi expect nag saawaan baawaan 2021 bi yàlla dax corona bi mu dem ci jàmm ndax lu ñu manqué yow corona ñu ko teg 2020 bi yal na ji yàlla dimbale ñu jéggi 2021 mu neex saawaan baawaan yokkute QTV si kaw ci kanam. jërëjëf yàlla ñu fekkee déwén ak at yu bari bëree bëree bëri onkul 2020 dafa bëri woon corona de. corona mu ngi fi benn tey. waaw mu ngi fi benn tey hmm. te léegi ñu ngi dugg ne si 2021 lan na naka nga yaakaar ne 2021 noonu la war a mel. wax ñun ñun ñëpp fi mu nekk respect mejosi osanga solma lo oh, soluma masque masque bang suma poche soluma ko dama ko a sol social distance fii amul social distance osanga raxasu fii amul raxasu waaw so léegi 2021 bi noo bëgg mu mel waaye am nga lu ñu ñaan corona gën a fii ñun ñu corona waaye foog ñu ndam ñu respect ko dafa doy waar fa ñu respect ko bu mun a dégg nga. all right Korka. all thank you uncle. all happy new year. same to you. all right bandi nga waay. ñoo xam ne nag dof leen ñu ngi si digg dëkk bi TikTok hello TikTok TikTok Kunda. hi. ah kon da ii non man dama am yar TikTok laa lay nekk di um, ah. raccage ak yooyu waaye. oye nama oh, naa la de. since when are you nice Oui, man, suma waay nga nag bu mu feeñ suma waay la lah man bilaay man bal sa ta filin yaay ko fay xam tiktok fa toj nga oh yeah nga man lay anaka taaw yi. suñ amee suñ leen téye soo gisee gars yi tooy. lii taaw yi nuñ leen di amee la. maanaam mu ne soo leen gisee taaw yi ñu tooy maanaam taaw yi ñu ne kii dafa tooy comme taaw nu mu demee. waaw ma dañ tooy de. non soo gisee gars yi slow and all of that. ñu ne ñu ñuy da nga dee gis nga am taaw ko si yaa soo nga am doom. soo soo téye taaw bi war koo naagee soo ko téye naka kor ka yii. yeah awna taw bi dafa gaaw a waaye su fekkee caat la comme man xam nga man gis nga nu ma graawee nii ak yooyu nu ma ak yooyu ñun dañu dee pampa nicely ak yooyu moo tax ñun ñu graaw dama da yeen caat yi ngeen mel nii soo dañ tooy wowu ma ne dañ tooy waaye dañ sulu wax sa gémmiñ de waaw exactly léegi nah. Mariam nah. eh, sa 2021 noko noko neka di plané ak sa 2021 bi naka nga loo bëgg achieve si 2021 Um, buguma wax ne dama bëgg a nekk ku ees or whatsoever I just want to keep growing do bigger things but bëgg naa balaa 2021 bi di jee yàlla may ma alal boo xam ne dinaa ko teralee doomi aadama yi dama bëgg a dimbali doomi aadama yi korka loolu rek laa bëgg. yàlla nga am jëkkër balaa 2020. ak jëkkër waa ak jëkkër. so maanaam maanaam yaa ngi free laa na ku bugg rek mun na. ah non free but yeah. waaye waaye damaa ci. da nga bëgg a jëkkër. waaye Nix. Nix. <laughs> waaw Nix Nix sax ma say def dee TikTok. tegil sa loxo yi si kaw. génne sa loxo bi génne sa loxo bi. non man su ma ko boole sax war na. déedéet déedéet non non. waxal waxal. yeah yeah tegal loxo. I'm free to do whatever I want to do. okay so Nix xam nga. Ah, ah, ban plan la tiktokers Gambia si am. si 2021. good foofu laa bëggoon a chip in comme. one like her she's uh, doing something loo xam ne xëy na I wish I wish ma amoon that time because job bi mayu ma ko I wish ma amoon that time pour join guy and everything because like comme TikTok nekkul ne like you just there to entertain prim parawan everything but ñu ngi start up something loo xam ne. Uh, ñu ngi gaada ay uh, bagages nga xam ne like comme uh, gaay tanka tanka yi war nañ koo soxla ok comme gis naa yaa ak mile two prisons and everything xëy na loolu it's good loo xam ne like moom dina la si jéem a brief and I believe ne askan gi out there suñ ko seetaan tam they they can put in their hands and yooyu xëy na loolu mun na la see wax. waaw yow nga comme tiktokers yi ñu mun a jàppalee gaay tanka tanka gaay mile two Um, ñun mënuñ leen a jàppale but I believe um, suñ platform bi can do something so moo taxee moo taxoon ma ñëw with the idea comme ku nekk even if you cannot donate anything TikTok bu nekk urge nañ la nga donate but even if you cannot donate yére yoo solaatut you can comme on board with wala nga just nga just spread the message as a TikToker nga spread the message so Red Cross am na lu ñu donate ay mbaaja yu bëri basang so am na xaalis buñ amaagum tamit bëriwul but it's we manage with so dañ ko jëndi ay provision su ñëw bu ko tànka tànka mal to prisons probably lopitaani Banjul ak yooyu ñu jàppale cause um, mënuñoo jël suñ plateforme yi kese di ko di ko caaxaane all the time Happy New Year. Happy New Year. TikTok bi bye bye ba ba booy yaa tudd booy vibes ah yaay bu tànga nga dundee non bu seeda loolu moo tax seeda nii booy yow nga ndaw de booy xanaa yow nga bokk ak Moussa Balde non non bokkuma Moussa Balde ah baro laa booy ah, yaay ba booy happy new year sa 2021 waaw da ngaa teelu soo ma laajte da ngaa teelu man ma ne sa 2020. waaw naka la meloon. waaw sant naa si yàlla nga julli si bi xam nga even though corona bi xaw naa destroy a lot of things but mu ngi mu ngi mu ngi nga. naka nga bi mu mu mu toogee nag. non def ah, nu ma ko bëggee daal mooy ne xalal moo ba cool. like ñu sant si waa borom bi daal comme as far as romb nañ si 2022. Mm-hmm. ñu ngi dem 2021. everybody xam a blessed new year. Mm-hmm. pour daal ñu achieve lot of things loo xam ne like nañu yóbbu si kanam. da nga bokk ak Moussa Balde ana. Moussa Balde suma rakk la. xanaa si famille bi la. deret bi la. <laughs> Sister, you're hanging nice there. Jerry Jeff. Access specs. Yeah, I like it. Thank you. Noma ko may, may mako. Wa na la ko may, bul wax dara. Waaw. Oh, Yaa toro naka? <laughs> Sira. Sira. Wow. So 2020 no melon? Ah, alhamdulillah neexoon na. Fekkee dañ ko. waaye 2021 bi ah. yal nañu génnal bu paase. feebar bi yàlla daaxa ko mu jógee fi. loolu laa am lu ma Sister yaa Thank you so much. Man Fatu. mbou Mbow. Fatou wa yaa. Waaw, yee waa yee. ok yow. Mm. sa 2020 ni numero. Am ah, am na ya la feke na ko. maa ngi ñaan ñu fekkee ko at bore. bëree bëri. de ni feke ko da at bore bëree bëri bii am nga naay aw ma jëkkër. waaw léegi balaa balaa balaa 2021 di jee. yàlla ma yàlla may jëkkër ba ëllëg sax su ma amee jëkkër ma sëy. ah uy ma uy ma da nga bëgg am jëkkër. waaw waaw. bëgguloo booy bu njool bale ma may la ko nit di jee nit. ah bu wanaa kay. ah non man dama fees. dama fees am naa foo. waaw. yow saa kon yow doon si bi bunta bi Gambie. ah tako waaw ma def lan. tako tako. waaw waaye man bëgguma tako de xale bu ndaw bi am ni man. <laughs> man amul ah, këram la moo nekk soo amee ñeneenti jëkk ñeneenti jabar kenn ki da nga bàyyi every Friday nga dem aye si moom ah. <laughs> Ah, def des live li depuis lu nekkoon ci jamono ya maam yi bentee mu ngi fa waaw yow ban façon weecu te nga nga fi gis right now loo xam ne ne comme nit yi da ko daan def before te léegi nekkuñ di ko def ak ñu yabii nii di yaa noo ko noo ko yaakaaree mu mel waaw xëj na niñ ko daan célébrité before ñun suñu xaleel yaa u dafa utee boobu dang daan am ah, di nga am zimba di nga am am am am am am you know ay faamara ay yooyu kankurang bon ñun biñ jógee Europe ñu ñëw maa sool ñu dëkk Angleterre dinañ gis ne culture bi mu ngi change hunting yi rek ñoo daan organize which is a youth culture now part of our culture so ñu ne lañ come with something different with our own culture which is Zimba yee Samba Soho yee Tana Biir yooyu nga xam ne they they they are Gambian culture ñu celebrate ko this year was tough because this year moom sponsors yi kenn mënut a ñëw because of the corona situation and the economic problem big guy face. So you know, can organize at a low scale, and if you can see, everybody is here and everybody is enjoying themselves, and that's the whole essence. And the economic activity they happen for everybody. So that means the local people they are benefiting something from it. So that's good idea of making so that this thing stay. We make it bigger for everybody to see see themselves in the program. What are you expecting on 2021? 2021, what we are expecting It's a, it's, a, it's, a, it's a boom in Gambia. We want to see a boom in Gambia. It was tough for everybody in 2020. Since March we are now, nothing dohut, Sidekabi. But 2021, we expect a booming country, a, a new president, and also everybody feel uh, you know we have to enjoy and you know parce que ñi ñi dem during 2020 dafa bari and 2020 is a year boo xam ne nañ ko nañ ko nañ ñaan ñun ñëpp buñ ñëwaat we have a happy 2021 and 2021 Bobu Lenyo, I'm 10 years. You know, I see program will be in the 10 years it will be a totally different celebration and a bigger one. Thanks. One. Happy New Year. We see suma gars yi nag li laa leen amaloon nag ah, tey si Korka street talk bi spécial street talk leen amoon nag fi nga xam ne ne moo nekk Banjul ah, fii leen nekkoon tey nag ah, si nga xam ne ne ñoo ñooy ekum mbaba foofu leen tëjee si aaj bi gis rek crowd bi nu mel nii so loolu moo tax ne comme Korka street talk ñu ne bii ñu yee la ñu yee vitesse style la soo lu ma ñu ñëw fii nii ñu ngi leen special corkes street top fii si Banjul te nag la yooyu noonu yu garaaw yi te dañoo la te nit rek ak seen ñu yee bi seen laas nu meloon ak di si ya nu moo nu moo mel nañ yàlla nan nan ñaan yàlla jaama bu nekk Gambia mu maintain fii nii ñu ñaan yàlla tamit ah, ah, coronavirus bi génn si àdduna bi su boobaa ñu yëg ñu dellu si waat nu ñu nekkee woon so corkes street bi li laa leen tey ku nekkoon moo nekkoon Moussa Moussa Bégé moo ñu doon drive suma caméra lady bi tey moo nekk nak maam Cheikh Ngom maam Cheikh nuyu naa la bu baax moo nekkoon sun sun sun ah, ah, lady bi tey léegi nag ah, nix moo ñu doon jàppale pour ñu mun a faciliter interview si di yóbbu si place yaa nga moom waa Banjul la ñun waa Cambérène xamuñ koñ koñ Banjul ñun combo amuñ amuñ street numbers amuñ street names laal si bitiki naar bi wala si si si si bitiki pol bi foofu loolu leen xam waa Banjul nix moo ñu jàppale ba ñu mun a am ñii fi gërëm ñëpp nag ki nga xam ne rek ñee ngi doon seetaan di gërëm tur sponsors yi ñi nga xam ñoo nekk Inco ak Vestel soo leen bëggee bagage yu baax rek dem leen si ñaari place yi nii Inco wala Vestel ngeen am bagage yu leen gënal mooy loolu Korka Street Talk li laa leen amaloon bye bye see next time waaye si loo nekka ah. ah maa ngi nii rek yow yaa ngi yaa ngi toog ni mel ni ku ku amut liggéey xanaa jeexaluloo sa koos bi man jeexal naa suma coos bi waaye maa ngi bugg a commencé suma liggéey bi mu ngi mel ni bagage yi yëpp a seer maa ngi toog xanaa demuloo inko <laughs> lan moo inko da nga bugg xam lan mooy inko waaw jógal ñu fii soo ñëwee suñ place looy njëkk a bàyyi xel mooy mooy inko maanaam IMGCO. E waaw kay. am na nag ci dëkk bi fii. Hmm. place yu bari ñu ngay jël suñu kolo bi di ko mbuboo. waa pire pire ji fii la. bu ko jaawaale. Hmm. soo ñëwee rek seetal brand bi. Hmm. lii mooy di impo. waaw nekkee kapinta nga. maçon fiita mécanique bi sax. kaa ñu dugg si waa ji kontaan naa de. lii mooy impo. soo fi ñëwee rek kontaan fii nag Jimpex mooy seen maakaan bu mag bi waaw soo demee Sukuta traffic light ñu ngi fa amee tamit beneen branch am nañ fa beneen branch am nañ fa beneen branch ak Inco aduna bi mu ngi si sa loxo